salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp di nuyu euh, le Cheikh Dieng mi waral euh, jotaay bi nga xam ne si soirée euh, politique du Sénégal musta am su ma jógee si docteur Cheikh Dieng maa ngi nuyu Doudou nuyu Ousmane Sonko maa ngi nuyu Déthié Déthié di nuyu Mamadou Lamine Diallo bu Tekki di nuyu Mayoro Faye de Saint-Louis Khalifa Sall maa koy nuyu di nuyu euh, Mame Diarra Fam Mame Diarra Fam nag moom dafa nekk euh, une femme euh, très très très très gentille moo xam ne dafay boole ñëpp ndax lii yëpp moo ko waral tey maa ngi nuyu Guy Marius Sagna di nuyu l'avocat maire donc euh, maa ngi nuyu ñëpp waree donc euh, ku ma fàtte rek Assane Diouf mon frère maa nuyu donc di nuyu ñëpp ku ma fàtte rek nag ma baal ak tey nag moom vraiment c'est un grand jour Timbo lañuy ñuy demandé lu mu seex naka yàbbi kon Timbo moom la ñuy demandé lu mu seex naka yàbbi docteur Cheikh Dieng ñëpp xam ko moo gagné ville de Dakar ville de ville de Pikine loolu moom ñëpp xam nañ ko bu recours amee nag kenn sonnatul on a des avocats qui sont compétents avec des PV irréprochables donc le travail sera facile donc loolu vraiment Pour régler ce problème-là, c'est comme une goutte d'eau. On peut le régler facilement avec euh, donc euh, l'appui des, des pôles pour que ñu rétablir la vérité des urnes ñu delloo euh, wàllu Pikine lu mu am ñoo ko ñàkk ñoo ko mérité dañ leen ko delloo dama xamul sax lu tax ñu ndax yabuñu Sonko à Ziguinchor yabuñu Barthélémy Diaz à Dakar yabuñu Serigne Mboup à Kaolack pourquoi ñu bëgg a yab maintenant docteur Dieng à Pikine diñ nangu tey diñ ko nangu ëllëg kon ñun ñëpp ñooy booloo xeex pour ñu delloo la vérité des urnes et que le maire reprend ses droits vraiment après cette mobilisation bon on nous parle d'un mois de recours donc d'un mois boo xam dañ étudier kon on va patienter mais nañu delloo la victoire à docteur Dieng maa ngi leen di gërëm di di sant voilà.